fukk démb yóbbu nañ leen sa kasu ba ba pare jàppee leen ay criminel yéenekaay gi nee na procureur dafa criminaliser li nga xam ne mooy dossier bi yéenekaay gi délibération ñu xëy fekk fa Guy Marius moom nag nee na ñi nga xam ne daal teg nañu leen loxo ci manifestation yi jamono ji dañu leen di torturer di leen di teg fitna te loolee police la te teguñu ko fenna fenn kaay gi ñu xëy fekk fa avocat bii di maître Dior Diagne moom nag dañu ko tuumaloon ne moo bind li nga xam ne mooy plainte bi ndaw si plainte Ousmane Sonko ba pare moo fat ndaw ci sa këram moom maître Dior Diagne daan na koy weddi ba pare nee na dafay porter plainte ndax dañu ko daal di tuumal mbir moomee nee na laaliwu ci benn yoon yéene kaay gi nee na ñi nga xam na ñooy société civile gi ñoom nag jamono ji daal ñoo ngi dalal mbir yi nee nañu nag ñaari pàcc yëpp nañu ànd ak dal fitna baaxul te am na loo xam ne dafa yàq démocratie réew mi yéene kaay gi ñu xëy fekk fa colonel Abdourahim Kébé moom nag nee na mbir mi nga xamante ni dal na Khalifa Sall dal Karim Wade ñu bëgg ko teg son Sonko mbir mi du demee noone du yombee noone ci Macky Sall te nag Macky Sall lenn kese moo mën a am mu nangu jàkkaarloo Ousmane Sonko 2024 ci lu jaar yoon ci lu normal lu mooy loolu rek mbedd ma lay jàkkaarloo la yéene kaay gi di Vox Populi bàyyi mbir moomee wax ci coronavirus bi nga xam ne jamono ji ma ngi jaaba jonge ci réew mi journal bi nee démb lu toll si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaara amee nañu doomu jàngoro ji am na lu toll ci fukk ak benn yoo xam ne faatu nañu ci yéen kaay gi di critique mu xëy moom tim di ñu xibaar naan ñu coronavirus bi jamono ji dafa wër réew mi Vox li moom li mu xam nee na couvre-feu bi nga xamante ni andi nañ ko ci réew mi amul lenn loo xam ne maanaam saafara na ko ci woppi coronavirus ji yéen kaay gi di réew mi moom mu xëy di ñu xibaar waaye ñu yóbbu ñu ca diwaanu Japon ci lu jëm ci wàllum coronavirus gi naal bi nee na ay million ngi millions ngi millions ngi dose vaccin yoo xam ne waa Japon dinañu ko sànni la ko waral dañoo am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum seringal yéen a kaay gii di réew mi quotidien moo xëy dem sa Japon di ñu ko xibaar 24 heures yéen a kaay Joe Biden barki de moo njaay dafa wax ne réew yi nga xam ne ñoo nangu wut a wàccoo ak àq ak yelleefu ñi nga xam ne ay borom ñaari tur yi lañu suñu ndimbal dootuñu ko jotati loolee nag tax na maam Makhtar Gueye bu ONG Jamra maire ba Mara de Taali di dànkaafu Macky Sall di dànkaafu Joe Biden nee na nag Macky Sall bu mu deltu ginnaaw benn yoon ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci borom ñaari tur yi yéen a gi di réew mi quotidien xëy seq waxtaan wu yaatu ak Bambali Seck mi nga xam ne aw waykat la nekk doomu Mapenda Seck moom Bambali Seck waxtaan wu yaatu la seq ak journaliste yi nekk ci réew mi quotidien wax na ci lu jëm ci wàllum ndorteelu carrière am ci lu jëm ci wàllum musique ñu laaj ko digganteem ak Wally Seck nee na Wally Seck magam la kilifaam la te sax ñoom ñaar nee na ñoo ngi waaj li nga xam ne mooy ab duo nee na Thione Seck mooy idolam moom Thione rek lay dégloo ñu laaj ko ci lu jëm ci coronavirus bi nee na ñëpp la faagaagal ñu ne ko ndax jot nga sa wàll ci xaalis bi nga xam ne jox nañ ko waykat yi nee na jutul wàllam te bu si jotoon sax daf koy dimbale ñi nga xam ne ñoo ko ko gën a soxla yéen kaay gii di lii quotidien mu xëy yóbbu ñu marché Colobane ak salfaañoo gi nga xam ne marché Colobane salfaañoo na ko ak pëccëxoo gi nga xam ne moo am ci marché Colobane journal bi nee na lu toll ci fukk ak juróomi junni ci ay nit bis bu yàlla sàkk danañu dajee marché Colobane lu toll ci fukk ak ñetti tonni mbalit yoo xam ne bis bu set danañu ko tonne ci marché Colobane installation boo xam ne bu jaarul ci yoon ci lu jëm ci wàllum courant moo am ci marché Colobane te nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi sonal nañu loolu askan wi nga xam ne dëkk ci wetu marché bi journal bi nee ay bouche d'incendie maanaam bu lakk amoon li nga xam ne moo koy fay ay bouche d'incendie amul ca marché Colobane journal bi nee na kenn mënu fa dox ak sa tànk maanaam passage piéton yéen a kaay gi di li ko di jee xëy tënk kàddu yëpp ne koy wër marché bu salfaañoo marché bu am pëcc xool demal ca marché Colobane yéen a gi di réew mi quotidien moom xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu sa diwaanu Mali nee na foofee ak cong goo xam ne gën gaa toll si ñaar fukk ci ay casque bleu yu munisma am nañu saay gaañu gaañu yéen a kaay gi di estat